loolee nag sax naam lu rafet la lu baax la waaye fu ñuy waxee mbaax boobu ngëneel dafaa newut moom yéeneem mooy mu def ngëneel yéeneem mooy def ngëneel ngëneel ngir li war RTS yéeneem mooy def ngëneel waaye li dox sa diggante ak moom te nga am am cër boo ciy def moom itam mu am yéene ak cër bu mu ciy def kon loolu dañuy ci ñaanal bu baax xam nañ ne itam programme yoo xam ne yu naam am na lu fi doon am waaye tey jii ku gis kat di nga xam ne xel ca xam ne nii noo doon pas-pas bañ ci am ak yéene jañ ci am ak nañu womatawoon suñu yoon itam xamal leen ne Mbàkke li mooy suñu bëgg nga defal ñu ci ñaan loolee dara du ca wàññeeku moo waral ñu ne loolee nag sax dañoo doyut ana lañ moo ñu gën a doy mooy ñu wommatuwaat itam xamal ne kan Mbàkke liggéey bi ñoo ko bokk xamal ne itam am na luñ ci sas am nañ soo xam itam suñu yéene dafa fawxa lool la ñu ci sas moo waral ñu wommatu indi loo xam ne itam ab barkeelu na xam nañ coono yi ngeen di toggoo ak gan ñi te ku nekk itam suñu sañoon ñoo leen koy defal ñu ne nag lii doon nga xam ne itam ndox muy lu ñu fonk lool bëgg ko lool itam mu am ci njariñ lool itam ñu ne nag foog ñu wommatu am loo xam ne dañuy ñëw teg ko ci sa loxo nga teg ko ci loxo loxoy sëriñ mun Mountakha ngir ganu sëriñ tubaay yi ñu barkeelu ci teraanga ji leen dëkk bu tedd bi ndax xam nañu fi dara du fi manqué waaye nag bëgg ngeen boole ñu ci taw feex ngay am nga xam ne ku teral ganu sëriñ Touba gi am na rek Mbàkke loolee daal Mbàkke nekk na kàddu yi xam na nag dama matul ndaw waaye nag defe naa ne sëñ ma Jaw Paxa moo ko waxoon sëñ bi ñun day matuñu lay ay dongo waaye yow ñun nga ñun nga am ëpp nga ñub sëriñ itam kon nag ñun xam nañ ne man mii matu mat ndawam waaye nag loolu suñ borom dogal sama diggante ak moom mu ànd ak directeur télévision ànd ak moo nekk ni di Pape Malick ànd ak directeur rajo di François Xavier Thiaw ànd ak directeur administratif et financier man mii may conseil spécial mu teg ma ci wetam itam loolu mu nekk loo xam ne itam ñu ngi la ciy sant di ko ci gërëm te nga ñaanal ñu ngir yaakaar ji mu am ci ñun dara bañ cee yàkkeeku yaakaar nañ ko ci yaakaar nañ ko ci bés bi yaakaar nañ ko tam ci dëkk bu tedd bi loolu daal Mbàkke mooy itte ji mooy bëgg gi mooy itam taxawaay bi mooy itam fedd li kóllëre gi nga xam ne nii ci lu ma dénk moom la ngeen séq ak la ngeen ko teg ak nang ma la jàppee ak na ko jàppee loolee nag moom suñ borom rek lañ koy séddal ñu ngi teg foofu kàddu gi Mbàkke di tuuba ko jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi yëkkati kàddu nuyoo di ko teg ci loxol directeur seneral RTS Pape Alé ak mboolem délégation bi nga àndal bépp di directeur télévision ak directeur rajo ba ci sëriñ Xaali Seck ak mboolem ña nga fa bàyyi ñëpp di ab yu mbay ñoom ñëpp bayuñ kenn ñu ngi lay delluwaatu nuyoo bu baax a baax ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi Serigne Touba di ko ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér ndax lii lépp boo koy def jëmmam ak yoon wi moo tax nga def ko kon yëg nañ ko bu baax a baax doo loo doo doo nañ sëkk nag sa ku jëkk ndax xam na lii ak yéeg rek ak wane ak sa ci Serigne wane sa ci dëkk bi te loolu moom du lu may du si may jàngal lu ma xam la ci yow. ndax sëñ Abdul Ahad wax naan nit dañ koy jàngal bu mokkal ko ni fàtte lu ci dolli xam ko lu ci wàññi ku xam ko sëñ Saaliw daa wax lu am solo daa wax naan yàlla nattuwuma may xam ci ni dara dégg dara di ko gëm man ne foofu rek laay def ndax foofu laay yoon woo laay fa seeni jaar ndax samay kilifa ci loolu laa ne fekkoon ma xam ci nit rek laay jàpp ba keroog may gis luko ko dindi kon nag lañ xamoon ci yow démb muy lu yàgg ci sag fonk kóllëre ak sag fonk yoon wi sag fonk Sëriñ Tuubaa loole bi nga toogee yéemu ci waxe kese waaye da ko jëfe ndax lii xaali wax léegi rek daanaka ñëw gisam mataatu ko woon ndax ku gis programme yi nga def ci télévision bi dana xam ne la nga man ak la nga def nga ko ci feneen si yéene ba def ci loo xam ñun sax séntuñ ko woon kon loolu cant ak ngërëm képp lañ la ci ëmbal te lay xamal ne Sëriñ Tuubaa képp ku jëf ngir moom la doo ko rëccu kon ñu ngi lay ñaanal bu baax ndax am na lu ma xam ci yow mooy xam naa ne doo def dara te gëmoo ko yàlla bindeewul ko yàlla bindeewul noonu bu doon bu dee ko jiitam réew sax boo waxee dara te àndoo ci da nga ne ànduma ci loolu moom xam naa ko mën naa cee wax yu bari yu ma xam te da ngay jàkkaarloo doo bàyyi ba génnit wax nga ko genn kilifa ne ko du ma toog yow ba jukkat nga dégg ma waxe ne nen nga jàpp ne la ma waxante ne dama ko bàyyi dama ko mënut dama du def lool noonu la ko yàlla bindee xam naa ko kon li loolu ñu xamoon ci yow daal ñu ngi lay ñaanal yàlla saxal ko ci yow ba dara bañ ko soppi ci àdduna liggéey bi itam di RTS xam nga ni RTS moom dafa am li ñuy wax xasaasiya ndax télévision la boo xam réew mépp ko bokk ñëpp war cee gis seen bopp itam ka gën a kawe ba ka gën a gën a suufe kon la sëñ bi waxoon ci ndono rek ndono la ñëpp ko bokk te nit ñi moom li fi mi ngi baax rek duñ ko gis ba bu benn safaan amee ñu fàtte lépp addunay doxe noonu kon nag yaa ngi gis nañ yaa ngi ci góorgóorlu te yéen woo ko it ndax yow yéen woo adduna la yàlla bindee woo ko te loolu solo suñu mbëru saa dara wax naan adduna ko yoonoo bopp am xel lañ ko yoonoo koo gis ma yoonoo àdduna xel ah, bopp rek moo tax mu sonal ko kon nag ñu ngi lay soññ di la góorgóorlu di la xam ne daal liggéey bi moom ñi ñu ko tegoon seen loxo tàmbale ci sëriñ Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma bi nga xam moo jiite commission bi ak ñu topp ci ginnaaw yëpp di sëriñ Cheikh Jili Mbacké mi sëriñ Mamadou Abdou Doot ba ci ñi ne ci seen ginnaaw te tudduma leen waa daayira Rawdu Rayaahiin ak ñi ci des ñëpp ak mboolem fu bu war dem lam fa war a génne mu ngi koy génne te lépp la ci ëpp solo la nga waxoon def nga ko dangaa waxoon ne ci njëlbeen damay fexe ba jafe-jafe yi am Tuubaa yëpp ma génn ko ñuy wut ci saafara bu dee jëmi màggal gi ñu fexe ba lépp jëm ci wàllu diine loolu nag def nga ko bu baax yokk nga ko kon ñu ne sant bu baax di la gërëm la ñaanal yàlla defal la ndam ci liggéey bi defal la ci ndimbal tawféex ba nii nga fayee ci bisu sëñ Tuubaa yàlla na sëñ Tuubaa fayee sëñ faw ndax moo ko daali woon nag loolu du samay wax ndax man mënuma ci dara waaye neew na ku fe ku a feeñal sama mbir yàlla feeñal la ku yëkkati sama mbir yàlla yëkkati la ku jéem a suufeel sama mbir yàlla suufeel bu faw kon nag rafet nañ ceew njort bu baax ci ne fa nga ko bëggee bu ko fi yóbbu te yàlla na ko weesu nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala